li mu wax ni nun nooy bunt bi loolu moom yitteelu ma li mu wax ni nun ab gouvernement lanu gouvernement boobu la ko waral fa mu jaar mënoon naa cee leeral ndax lépp a ngeeg man liñ doon wax république euh, lébu la taxoon ñu sos ko fa mu jaar lépp xam nañ ko te jamono yooyu wuute na ak léegi lool lool lool lool kon nag bu taxawee ni sunu juma day baax lool ñu leeral nit ñi ni leen jumaa yi ndakaaru jii kët nii la ko julliti Sénégal yi tabaxe jarul ma cay ndax kenn ku nekk te nga joxe woon ci saw ñaq journal bi bind na ko ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars keroog ba ñu koy ubbi itam teew na fa Serigne Cheikh Awa Balla teew na fa Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma julli ga Serigne Abdoul Aziz Dabba xalif général des Mourides xalif général des Tidiane moo ko jiite ci teewaayu buuru Maroc di Hassan II ak Senghor ak ay jullit yu baree bare baree baree kon mbokk mu gudd mu gàtt taarixub jumaa yi Ndakaaru jii di grande mosquée de Dakar nii la demee ñii ñoo ci joxe seenu ñaq kon ki ni seen juma war na noo wax nan la ñu def ba moom jumaa ji